ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar sur Dakaractu tey nag euh, ñu ñëw seet si oustaz Iran Ndao fas yéene seq ak moom waxtaan am solo damay wax Madoune Diouf sànq ne Iran euh, problème mu Ablaye Mbaye bi lu mu ci def suñu fierté la ndax euh, Youssou Dieng man mii la woon ma ànd ak Madoune Diouf ñu dem kër ga parcelle jëli ko yàlla def vidéo bi daw biñ ma nee oustaz jot na ci sama xel dal oustaz ñoo ngi leen ziar. waa kay ñu ngi leen di delloo ziar di kontaan ci site bi bu baax di ziar ñu koy seetaan ñëpp. ñaan itam yàlla barkeel ko nag ba li ngeen ci yéene yëpp sunu borom defal leen ko incha allah. Eh, maanaam oustaz problème mu wayjuru Ablaye Mbaye eh, oustaz am na lu mu ci waxoon mel na ni yàlla sama borom suturaal na ko ci. waaw jërëjëf xam nga liñ ci waxoon mooy bi ma ko seetaanee dañ ma ko envoyé rek ma seetaan ko vraiment yëram maire bi ma gis ñu wane. ab Ablaye ca boor ba wane maam Kumba ci boor bi eh, yaay ji wax ba jooy te li ma ci gën a eh, métti bu dee metti laay wax walla li ma gën a yëg mooy bi mu waxee ne masul xam ne lu naqari am na masul xamit ne lu métti am na kan moo tax xamu koon woon Ablaye doomam moo tax wax naa ne lay ku am chance la parce que ngërëmu yaayam moo ko may kër ga mu uutoon yàlla dogalu ko adduna bi yëpp taxaw pour uutal ko kër joxal ko yaayam kooku amul ngërëm mënoo ko am parce que li yaayam ne bu ma xamee lu naqarit bi mu nelawee la bu ma xamee lu métti ci la kon nekk Ablaye ci xolu yaayam la doon daw ba ni mu faatoo kon yéene ji mu yéene il faut yàlla yi tàgg ñu ko ko mottali il faut yàlla tàgg ñu ko mottali bi mbir mi amee euh, am na ay rendez-vous yu ma fi déggoon ay ministre de la culture dalal na waajur bu jigéen ak yu mel noonu est-ce que Iran bi mu songee combat bi ñuy tuddee les autorités étatiques est-ce que fekk si nañu ci dugal seen loxo. Euh, gisuma leen dégg naa sax ñu ne Macky jox na ma deux cent millions <laughs> ma ne leen ah Macky est-ce que ñeme na fi réewam mi toll.

Iran génn wax lu uuteeg la mu waxoon maanaam damaa xasoon tey ma tagg ko may leen daanuwuma damaa juutu rek xam nga daanu dafa tuuti parce que mag du weddi boppam maam Cheikh Omarul Fuuti Taal dafa wax ne Sénégal laa gis nit toog ci palaas tagg fa nit jógagul ca place ba xas ka mu taggoon loolu mooy sunu aada moo tax man yëguma benn ci état bi ku jël dërëm joxe ko ci yëgaguma ko xëy na ginnaaw dinañ def deuxième téléthon 22 août bi xëy na xanaa dinañ ñëw <laughs> joxe ci mais ñoom ñu def defuñu incha allah dana sotti. mais mais oustaz li muy porté combat yu mel nii euh, bari na oustaz ci même personne yi ñoo koy dimbali wala oustaz tey bu demee ci ñu suba dem ñële wala day woote après ba rek jullit di ku nekk jël. waaw xam nga nag man dama am doxin bo xam duma koy wax suñu vous di liggéey dara nga train mako ko légui que bi kat juroomi junni la damay fexé ba di def compte ma la juroomi million stratégie voilà nit ñi ñëpp Voilà. ko am sa mille francs 500 francs 2000 francs ci ko soxla quatorze millions man mom au début nee sama xel dal na mais est-ce que ça sera possible ak fi mi toll. non non man man ma wax la lenn. buma soxlo 1 milliard dinaa ko génne maa la wax li lan moy secret bi. non ànd ak yàlla rek. 1 milliard buma ko soxlo won ci Sénégal gi dina ko génne jalal la ko fii benn sikk nekku ci. ki joxe wërsëg moy sunu borom. moy razzaqu ki moy jox wërsëg moy nit te su ko neexee tàggat boromi milliard mu sëq dix milliards jox la ko ti du ko tey parce que ki ko ko jox moo ko jëlaat joxe ko keneen. allahu akbar oustaz Ira ba relation la am ak Adjaratou fay Faye. suma xarit la Marème sama xarit la euh, bu baax euh, damay wax ne sunu xaritoo nag des na lu tax su demee. ba yàlla dogoon ñu jeexal ci nguur gi booba lay xam kuy Iran mais ci moment yi du xam Iran man noonu lay doxe Marim suma xarit la ku baax la Sénégal def fi lu baax moo yombul xam nga Sénégal euh, danay wax ne Serigne Mountakha rek laa gis mu man fee dëkk. Iran. sëñ Muntaxa xoolal ci affaire corona bi gars yi dinañ indi kaanaan Touba mu ne patte rek parce que bi muy toog daf ne man liggéeyal sëñ Touba moo ma tax a jóg. wax jeex na keroog bi chauffeur yi di ne lu mu wax xool leen ci man xool leen ci man ça veut dégg naa lu ne ñu ngi may def lu ne déggu leen ma wax. mais Marème ban particularité la am bu tax Iran tee ko par Iran xam nañ ko ci franchise boo xam ne du du tee ci ay tappaleek yu mel. waaw moo tax ma indil la sëñ Mountakha man dama bëgg nit ku franc Marème dama gis muy taxawu ay daara maa ko gis kii Cees la dëkk kee sëgg ne dafa am benn daara bu fa nekkoon sëriñu daara ba ñu abal ko kër gi boroom kër gi ñëw di nangu kër gi xaw ma lu ko wax Marème fay Sall kër ga six millions lañ ko doon jaayee Marème yónni ci suuf fay kër ga ne waa ji bu kenn xam ne mana senegal man ni ma gis muy dundee daara yu bëri tuwaawoon ak fudul tuwaawoon gàmmu tuwaawoon day ñëw xam nga nu muy def man trente tonnes ceeb la naan jox ko Iran mu séddale ko ñiy gàmmul dal yi maay sama bopp boo buggee boo amee WhatsApp kii dina la yónnee lépp du ma nangu pepp ceeb dugg ci magasin parce que ceeb bii ñëw pour pour pour pour pour gan yàlla yi la ak gan yonent bi mais du pour yow lu tax nga di ko tëj ci digg daar jël lañ koy rangale ba mu fees seen TV jëloon na ko 30 tonnes maa génnal sama bopp di ko séddale benn saako ceeb awma ko ca parce que duma ko def Mariam ku baax la ku mën a sonn ci nit la mas toog ñu nettali ma benn mbir yaayam a ngi toog Marème dafa dem jël yëre yaayam dem jox ko doomu baayam yére bu rafet xoole sa yaay am yëre bu rafet Marème jël ko dem jox ko doomu baayam yaayu Marème umu jàllo dal di gis yére bi ni ko yow sa yére bi rafet na te xamul ne yére ba pour wax la Marème dundul doomu baay moom ku social la aussi xol bi dafa rafet xam naa ko ndax ku mën a temps yële bi muy def daara raxmaam yi mu def tournée ci paa yi néew doole wutal leen ay douche wutal leen ay lu ne lal lu ne mu toppatoo ko ba julee néew yoo fa mu defar mais yooyu yëpp euh, euh, bu fekkee ne dañ koy denc rënk ko suñ demee ba yàlla dogal dundatul ñëpp génne lum daan def mais loolu ak naa fekk la nit dangay ngay reconnaître jëfam balaa dee nga nangul ko ko balaa dee Mariam Faye jàmbaar pire la ko sonn ci daara yi la ko sonn ci handicapé yi la xam naa ci dara man lu ma wax ci nit war na ko gëm man lu ma wax ci war na ko gëm Oustaz euh, fan yi euh, coow lu metti am ci mbiru màggalu Tuuba màggal nañ ko repousse jàngoro ji ñu taxaw dafa war a am <laughs> ban gis-gis la ci Oustaz Iran xana bi ci sëñ muntaka gis rek mom muy khalifa bi nañ ko deglu rek ni ci kanam rawul beut xam nga e, khalifa li tax jek ko wax wour so waxe mu genn wax lu ak la nga wax loy def yeen da ngeen di bind site bi ni serigne bi toroxal na Iran <laughs> loolu xam naa leen loolu ngeen may bindal motax man e, e, kuma lacc affaireu gamok magal manela delul ci seeni borom li ci kanam rawul bët ki ko ki ki ki ki ko war laaj mu war koo saytu muy Serigne Mountakha. xam na yan décision la ci war kon donc ñun duñ ci mën a wax duñu porte parole te porte parole du jëkk a wax ko koy wax loo te doonuñu ko kon nañ déglu rek góor gi déglu waa Touba rek lu ñu tëral rek ñu xam ne lii moo fi ne. lu ñu tëral sama laaj mujj lu fi xew xewoon na. waaw jant tiimul gan lu fi xew xewoon na kon bu boobaa nag gaa yi def nag sa dama gis ñaari image yu xew temps ci image yu Facebook bi mooy jigéen ju jigéen ju am jëkkër jëkkëram di ko raamal ak jigéen ju tiim xarum tabaski di ko rendil boppam yooyu image waaw xam nga <laughs> xam nga yonent bi da daan boot soxnaam boot na Aïcha Aïcha nag dafa oyof man jigéen ñu pataa ñii ma gis ku leen boot sa ndigg damm la dëxëre yi ma gis ku ciy jéem a roy yonent bi ba boot ci kenn fa ngay gëj a génne xam nga ay sa mujjug dundam ñaati kilo la doon posé te booba la pataa 16 kilos 16 kilos mooy dafa am yaram bay régime te 16 kilos rek kooku boot ko yomb na yonent bi daf mas na dem kër Aboubacar ci ñu guddee di war a ñibbisi yonent bi sukk ci ëtt bi ne Aïcha waral Babacar téye ci mbagg Aïcha ni Moustapha fu muy war mu ne ko sama kaw mu ne ko xanaa danga bëgg mu alku mu ne ko du alku ne ko Babacar yéen a ngi nii seen soxna yaa ngi leen di bootee biir lu góor ponkal ponkal jigéen supporté ko kon bootee ko gannaaw ayul dëkk bi dafa bëri jaan bëgguma mu dox jaan màtt ko Madina dafa bari woon jaan mu boot ko romb ay xale yu góor melax gi ne xay xale yu góor yi ni eh góor gu boot jigéen melax ga dellusiwaat ne xay ñu ne Muhammad ibn Abdallah la yàlla ne ko jàddal ci ñoom leeralal leen ko bala nga leen a alag ndax dañ koy commentaire bi mu yegsee dafa wàcc Aïcha jël torse bi ñiit Aïcha nit boppam ne leen lu ma séq kii ñu ne ko yaay borom kër yaay borom këram mu ne leer na ñu ne ko naññi mu ne ko waral Aïcha war xale yi wàcc Aïcha mu ne leen lu xew ñu ne ko dañoo bëgg a war lislaam nashhadu an laa ilaha illa allahu wa nashhadu anna muhammadan rasulullah ndax jikko yii gisuñ ko ci benn yonent yow rek mel ni kon nañuy jébbul yonent bi boot ko ba ci biir kër ga mu wàcc ko Aysa ne ko ci néeg bi laa dëkk mu bootaat ba ci néeg mu wàcc ko mu ne ko ci lal bi laa jëm mu bootaat di ko wàcc mu ne ko toogal ma wàcc yonent bi toog Aysa tëdd loolu de yonent bi def na léegi jigéen juuree ndax xarum tabaski na wa zabul mar'ati jaa'izun texte baa ngoog ren di jigéen dagan na dara newu ci cest yi dire xamuñu dañoo miinul yu bëri waaw ah, dañoo miin xamuñu dañoo ne ci télé yi rek di leen kii rek di leen kii rek waaw mais jigéen mën na ren di lu ci ne wa zabxul mara jaizun gisoo Ali ibn Abi Talib bi mu juddoo ti papaam nekku fi yaay ma ko tudd est-ce que du pédagogie moom problème ko ni ñuy jàngalee Sénégal yi l'islam ñuy jàngale ñoo xamul tous dañoo jàngiwul nekk fii rek ci télé yi di wax lu ne waaw mu ngoo ay du bës baase baase day daw biir waaw mais loolu boo jàngulee kooku fiq bee la koy xamal Ali ibn Abi Taalib dafa judd baayam nekk ko fi Aboo Taalib yaayam Faatimatu bintu Asadin la tudd Faatima tudd ko tuddee ko Haydara mooy gaynde ñu ne ko lu tax mu ne dama bëgg mu man ci ay moromam ni gaynde manee ci àll bi tërandoo dafa foor bul tuddee sa doom ku mu mën a doon déedéet seetal ko koy tudd tuddee ko xaadimu rasul mu nekk góor piir di bañkat bàyyi bi ñibbi si ne ko kañ nga am doom mu ne ko fan yi tuddee naa ko xaydara mu ne ko jigéen du ma tuddal doom àll yi laa koy tuddee àll yi mooy ku tiim ay moromam moo gaynde kay du benn la rek yàlla nag bañ a toroxal Fatima ñu jël Ali def ko dur jël dara def ko sant Haydara def ko sant temps bi gàtt na waxtaan wi neex na rëy na waaye <laughs> waaw moom de sant leen rek gërëm leen euh, ñaan yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli fi sutura